représentant de NCA Assurance Vie. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'Association des livreurs du Sénégal à travers euh, son président Sedina Ali Fall, que je et je remercie également pour cette belle initiative. Par la même occasion également, je salue la, la presse ici, ici présente. Voilà. Alors, euh, quelle est la collaboration entre euh, votre structure et l'association des livreurs du Sénégal Aujourd'hui, je pense que c'est l'une des plus belles collaborations. Quand Seydina vraiment nous est venu nous voir, vraiment, on a, on a, on a, on a, on a détecté les besoins mm. dans un premier temps parce qu'ils sont exposés aujourd'hui à des dangers sur la route. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je salue même cette journée de sensibilisation. parce que sama casque sama sécurité vraiment je pense que affaire bu affaire bu rafet la et donc aujourd'hui euh, dans cette perspective de sécurité également nous les accompagnons par rapport à l'assurance vie et plus précisément capital en cas de décès ou en cas d'invalidité absolue mais au-delà de ça également a il y a également le capital à la retraite parce que ce sont des travailleurs ce sont des entrepreneurs un jour pour, euh, ou un autre, ils sont appelés aujourd'hui à aller à la retraite. Mm. Et raison pour laquelle, dans un premier temps, nous les accompagnons à travers ces deux solutions. Le capital en cas de décès et le capital à la retraite. Et, et combien de membres comptez-vous accompagner C'est l'ensemble des membres aujourd'hui. C'est l'ensemble des membres de l'association. On compte tous les accompagner, les, les assurer. Pour qu'aujourd'hui, s'il y a, on ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. S'il y a décès, que la famille puisse bénéficier d'un capital important. Ça ne peut pas remplacer la personne partie, ouais. mais ça peut bien aider. À la retraite également, aujourd'hui, une personne qui travaille jusqu'à 60 ans, il a besoin d'aller se reposer, mais d'aller se reposer en paix mm. et qu'il a au moins un capital intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire avec eux, parce que toujours est-il qu'il faut le dire, il faut le préciser, c'est pas une convention que nous avons juste nous mais, euh, mis en place les, les termes de référence. Mais les termes de référence, on en a parlé ensemble. avec eux et on est d'accord sur ça et on ci wolof rek nga dellu si waat ci waa Sénégal Seydina Alioune Fall président des livreurs national du Sénégal. alors tey euh, lan ngeen amal tey. waaw tey dañ fi ñëw dajale képp kuy def livraison rawatina cag-cag ñu ñi nga xam dañuy s'active si métier bi di si yëngu tey ñu dajaloo pour xamal sénégalais yi ni leen métier livraison métier bu noble la. samedi passé def nañu journée don de sang au niveau de la synthèse plus de quatre cent et quelques poche joxe nañ ko fa kon kan ñun ñi kon gàcc ngaalaam te ñoo ngi participer ci développement sanitaire Sénégal kon rafet na ñu dajale livre tey pour sensibiliser leen wax leen exactement lan mooy métier de livraison wax leen aussi lan la livreur bi war a comporter woo wax aussi livreur bi nan la mën a waxee ak population bi moo tax tey ñu woo suñu xarit suñuy mbokk suñuy àndandoo ñu yëngu secteur bi pour sensibiliser leen si port du casque parce que mooy suñu sécurité suñu slogan mooy sama casque sama sécurité sama dàll sama sécurité sama comportement bi may sol sama yére sama tubay sama sécurité moo tax ñu dajaloo fi pour wan ni Sénégal yi loolu la ñuy promouvoir te si loolu la ñuy dox. association bi ñaata euh, membres ñoo waaw pour l'instant au niveau national on est plus de quatre mille et quelques mais au niveau de la région de Dakar on est plus de six cent et quelques mënuñu ko estimer tey rek suñu caravane bi li ñu interpellé si ay nit. ëpp na cinq cent personnes donc loolu moo doon suñu mission loolu lu ñu bëggoon population bi jot ci moo tax ñu sensibiliser luye camion def lépp lu ci war avec accompagnement de la police accompagnement de la gendarmerie ak sapeur pompier di leen remercier aussi ci occasion bi pour wax leen gàcc ngaalaama ñoom loolu mooy suñu mission te loolu moo ñu tax a jóg. alors mbirum casque yi est-ce que yomb na pour yéen ngeen jot ci. casque yi yombul parce que casque bu ko bëggee am tey boo amul six mille francs ba doo am casque loolu nag. dañ si interpellé président de la République son excellence parce que bu ñu recevoir palais waxoon nañu nuy dañ ñu may jumtuwaay yooyu lu wàllum casque lu wàllum ay clinique pour booy di ko sol lu wàllum mutation gratuite parce que mutation gratuite boobu moo gën a tax tey suñu journée de sensibilisation bi ak casque yi parce que sensibilisation bi tey ku amu moto te amu météo ko sa tur ëllëg bu la reyee télé bi agresse la nangu sama du ñu xam fana lay identifier journée de sensibilisation bi nag day wax si ñetti mbir mooy carte grise yi ñu wàññil ñu ko permis de conduire yi livreur yi am si accès ak li nga xam ne mooy mutation gratuite bi loolu président moo ko waxoon te boobu ba léegi ñoo ngi koy déglu moo ñu waxoon après les élections trois mois après les élections dinaa leen woo ngeen ñëw boo leen ñëwee incha ñu toog waxtaan xam nan xam ñuy wax defaree affaire yi xam ñan la ñuy waxal ak ñan la ñuy waxal ñun nag lu ñu bëgg mooy que ñu defal ñu direction direction boo xam ne nii ñun association des livreurs Cak-Cak du Sénégal ñoo koy piloté parce que ñun ñooy yëngu secteur bi ah ñun ñoo xam exactement difficulté si li muy yëngu rek nga ko mën a wax mu wax la si ay ay ay problème yu si nekk président ñoo ngi lay ñaan say doom rek fi nekk say rakk rek fi nekk ba di ngay xoolee Aliou Sall di ko xoolee Amadou xoolee ñu ko boo ñu ko xoolee incha allah jeunesse bi danañ liggéey métier bi ñun ñoo ko créé mu nekk suñu métier bu noble ngal la waay yow yaa woote yoonu yokkute yow yaa woote yoonu ndaw ñi yow yaa woote la parti avant la patrie donc kay jàppale ndaw ñi bëgg nañu xëy ñun jëluñu géej gi di dee ci géej gi agressé wuñu sàcc wuñu dañuy daan doole jënd suñu moto mais nous sommes on n'a pas des moyens pour réaliser non rêves moyens yooyu nag kan moo ko am muy état moo ko donc président ñoo ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu doo dugal loxoom si secteur de la livraison parce que ndaw yëpp dugg nañ sóobu nañ te waxoon naa ko pale ni que la boo xam ni du dellu ginnaaw day avancé day naaw ci kanam ci kanam du kenn dootu ko mën a contrôler kon gars nañ ci jàpp ministre de la jeunesse ñoo ngi koy woo mu dugal ci loxoom parce que boobu ba ñoo ngi koy woolu répondrul te bëgg nañu ministre de la jeunesse dugal si loxoom aussi ndax jeunesse bi dañuy bëgg ku leen jàppale man moyen yi pour jënd moto am na sama morom bu nga xam ne amu ko moyen pour am carte grise wala permis am na sama morom yu ko amul donc autorité étatique yi nañu ñëw jàppale ñu di remercier suñu partenaire bu baax lu mel ni NCA assurance tey moo ñu defal assurance vie ñun ñi nga xam ne ñoom bokk si association bi am exclusivité bi képp ku bokk si association bi NCA defal boo inscrire si at mi benn yoon deux mille cinq cent lépp loolu mën dal si tali bi te mënuloo sa bopp dara ñu jox la cinq cent cinq mille la un million bu dee quinze mille la trois millions bu dee vingt cinq mille la loolu gàcc ngaalaam NCA ngeen tàccul ma leen bu baax a baax a baax di remercier aussi waa Orange Money jàpp nañ si bés bi ñoom ñëw nañu dimbali ñu un million may ñu ko boo xoolee suñu dépense yëpp si li ñu nekk xam na ne dana nekk genre publicité mais ngeen comprendre di remercier waa Axil Gaaw parce que ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi bu nag bu la jàppale da nga koy wax quoi voilà le samedi passé nous avons Euh, largement le nombre de postes. Nous avons donné plus de 600 postes. C'était juste pour contribuer aussi à remplir ce qu'on appelle les banques de sang. Aujourd'hui aussi, nous voilà le 5 décembre 2022 pour faire une journée de sensibilisation sur d'abord le port du casque, sur le comportement du livreur, sur aussi ce qu'on la, code de la, le code de la, de la route. Alors, pourquoi vous euh, la nécessité de porter des casques D'abord, nous avons vu que actuellement le métier de livreur était un métier incontournable. Nous avons vu que le Sénégal est un pays qui se développe de, de, façon à ce que les gens sont au niveau de l'offre et la demande. Donc on voit que c'est le secteur informel et que les livreurs ils sont là juste pour faire le rayon entre le client et le fournisseur. C'est pourquoi nous aussi avons jugé de dire que aussi pour notre sécurité, il est nécessaire de, de porter un casque. Parce que le casque, en réalité, ce n'est pas pour le client, c'est pour le livreur. Et quand on porte le casque, une fois qu'on est accident, en réalité, nous sommes protégés. Alors aujourd'hui, votre association compte combien de membres euh, L'association au niveau national, on a plus de membres. Donc, au niveau de Dakar, on est plus de 880 membres et nous avons des coordinations dans différents départements de, de Dakar et du Sénégal. Et quels sont les problèmes dont je pense que nous avons eu à, à, à, à l'énumérer quand le président, son Excellence M. Maxal, nous avait reçus au niveau euh, du Palais de la République. Nous avons dit que notre premier problème, c'est lié au, à des cartes à grises, c'est-à-dire qu'on ait aussi accès au permis de conduire. Parce que nous sommes conscients que pour conduire, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation, ça se trouve que c'est le permis de, de conduire. Et l'autre problème aussi, nous, nous, nous ils, ont, ils, ont, ils ont proposé de réglementer aussi le secteur. On les attend parce que le président Maxal nous a dit qu'il va réglementer le secteur de telle sorte qu'on pourra faire la différence entre qui est le livreur, qui est le voleur et qui est l'agresseur. Parce que phénomène actuellement social. On voit que la plupart des agressions sont faites à base de et les livreurs aussi utilisent ces mêmes moyens pour faire leur, leur Est-ce que concernant les, les, les casques, euh, c'est facile d'en procurer euh, je pense que ce n'est pas du tout que les prix des casques ne sont pas fois. Les casques, des fois, on les vend de 6 000 à 25 000, voire 50 000. il faut minimum 50 000 francs. Donc, des fournisseurs qui, pour, à un moment donné, nous aider, nous accompagner, nous faire à des prix qui sont un peu prenables, nous sommes, nous sommes partants. Donc, vous, sollicitez l'État à ce qu'il euh, subventionne les Oui, oui. Euh, loin de là, loin de là. Je pense que, euh, pour, dire, pour dire vrai, on veut que l'État s'organise à nous donner une direction qu'il ait une direction de l'association des livreurs du Sénégal, qui regroupe tous les livreurs du Sénégal. À un moment donné, s'il problème lié à la livraison, l'État saura à qui s'adresser. qu'il nous donne une direction. Il y a des diplômés, des pères de famille, des responsables, des gens, des rescapés de prison, des gens, énormément de personnes s'activent maintenant dans le métier de livraison. Donc c'est à l'État de s'organiser parce qu'on sait qu'à un moment donné, si l'État ne peut pas fournir d'emploi, mais l'État doit jouer le rôle de régulateur, il doit régulariser le secteur et nous en avons forcément besoin.